ma leen jaay fal ma fal ma leen jaay fal ma leen jaay ñànku day way boppam la jënd naa ñànku yow xanaa la jekk mooy ñànku boppam xanaa gisoo ñànku yow xamoon ñànku doo la jekk mooy ñànku ñànku dafa leew mi ngi kon du toog ñi ko mag lay kekkantoo ñànku bëggu jàng booy rangu soot ñi nee nañ dafa doog ñànku làmbal ak meen ku ne lay lami sool ñànku ñànku ñànku dafa ba dof attention attention attention addotina teelu leen ma man la ñànku njaay xamee ñëw naa nag di leen présenté chaîne bii nga xamante ni mooy 5 TV Sénégal wala Sénégal 5 point com topp leen ñaa ngi koy am si àddina boo ko soxlaa foofu nga koy seeti ji maa ko moom yéen a ko moom xoolal da nga def point sénégal 5 point information yu leer alhamdulilah weeru koor dina dina mos a rey nit nit dina jékki-jékki rek daanu dee daara daara daara sama ma ah daa waxal sëñ bi waxal maa ngi lay dégg soo xiir fa nga ko tàkk ah kon moom nga laajte mu ngi fay si lu ko ma rek am nga sens. man lépp la mu mu foofu bu sew bi. yow eh, bu dul woon ak gulaar gulaar. gàncax saali xule doom day saali xule bi mu la ko jox. léegi léegi boo ko tegee fii mu si sax la may wax. dañ ko buub. naan kon bëggatuma jotee teg yow. sëñ mënoo ma jotee ak man ngir yàlla mënoo jotee ak man mun boobu doon mun boobu doon dóor fii ba suba du ma fayu man doo dama xeexatee ak yow ndax yow da ngaa soxal yow su dóor day saf moo tax dama xeex ak yow man sabaru ma xeex di xeex ak góor jigéen nga xeexa waaw parce que góor ñi seen ale day saf bu baax la ñuy doon am nga sens sax yow yow yow dama la am may sama la gàmmoon dëgg dëgg dëgg sa taat yi ku ko xool dina mel ni dañ ko firir dem firir. wala ma doon doon métti ma de xaw la moo métti li mu war a dox Aliouma Ndiol César Aliouma moo métti. yow yaa ma njëkk a dóor Aliouma Ndiol ak César di ko waxee. waaw la tax nga di wax Aliouma Ndiol César. waaw ah, ma bëgg ñu xam fay na. un un. waaw fi ngi na. ba ci man. aw ah, aw ah, lu bëgg expliqué ma ko ma ko wax ne géewal ma bëgg. xamal laa bëgg. waxal. xiir gi laa lay laaj xiir gi. Mày à? Mày vay liều này. Ở chỗ con phị. Sama dong, sama dong. Makai sanggol, makai tanggal, bukan lah. Frayam. Lo kamu di mana jefe? Tai. Mon mau kali đi lo def lo, relax sekali def ko. Yow xam nga ni xam xam xam xam nga ni là la laa bëgg waaye te bëgguma xeex ak yow là la laa bëgg te bëgguma xeex ak yow

nga ñëwé ba tay ma lay dégg rek waye mënu ma fexé ba gis la ah bi tamit da nga xamné tamit weeru ko bi ma bi tamit wa même confirmation bi yow lu mënti doon jaraluma la bo ba légui ma lay dégg ci réew mi mënu ma fexé ba gis la en plus kañ nga ñëw sax waaw ah, ba ma ñëw ñëw na nak avant ñu tek frontière bi xam nga tamit euh, Maroc tamit mu mel tamit dañoo teel a jël comprendre mhm. nga yow da nga sori si man mo tax dama téé sama téléphone li mu mën a mel ci biir xol même su may xool say photo wala say essai say vidéo sama xol da nga maa la wax loolu. gis ma xoolee sama naa la <laughs> trop. non maa la raw. damaa woor de waaye bu ma woor woon mu demee neneen. waaye dañ koy maa la wax loolu. moo la gën a. maa waay de yow xanaa dégg lu ma la. kóor bu jeexee moom dama lay ñëw xolal coori mais nu ngeen dundee confinement bi ak euh, feebar bi et tout. Ah, foofu kay ah, métti na trop ñu xamante ndeysaan affaire bu ñëwee ba léegi sonn nañ yërëm naa leen kenn xamul lu mu doon. liggéey na moom métti na trop. Ah, kenn xamul lu doon. ça va. ñoo bi. nga sa problème. ngeen toog nii di doxaanante ci ci mi loolu pourquoi ça. ku la wax dañuy doxaanante. dafa leen déggul. fekkee sama soxna la nag. man nan laay tolle fii dégg na ko mën naa la mën naa la ay vee boo bu koor gi demewul nee eh, man maa ko wax waa léegi lan la woon. yow yaa ko maa ko wax maa ni ko je t'aime maa ni ko mon amour maa ni ko mon âge. yow yaa dégg loolu waxal moo kër te nga téye ma sama téléphone. bàyyi wax man yow dof nga de yow li lan la nii. dañ koy bàyyi nguur yàlla. noonu la demee. oui. ah yéen xamoo leen la quoi. yow la kan. très ya, bien. oh loolu laa ya, yàkkamti woon a dégg. Hmm. man la Ñanku Njaay falamaa leen. Ñanku Njaay mooy kan. xamoo ko ah foo toj. mii lii ma toj mel na. seen kër bu ma fa ñëwoon toj mii yëpp. nga tabaxaat ko ca ba muy moom. bu fekkee ciment amu fa nag. bu ciment amul nga jéem a wut ciment. yow xam nga la la wax ji mi ngi bari sa xam naa dëkkoo leen fi ñu koñ bi voilà dama lay wax yow ngay jaay ma fen ma dégg la ngalaan kii ay ay danga fotikee yow hmm. ah. bu tukki neexee laa mhm. dem la ñibbi yow. kan mooy ñibbi man. man ma ñibbi foo teg loolu. bu leen bu leen bu leen ci koñ bi fii. bu leen ko defet yow la kan yow man la ñànku njaay man la waa jam la dénk kool yow may ma mu naan waa jam la bu ko dénk doo ko defe ni kii sama soxna la fa toog nga fekk ñu fii kii demul fenn bàyyi ko góor yàlla gi yow dof nga de ku bopp yabooy bi yow raw na yabooy sax kii kala <laughs> kii jaru nga xëy ree jaru nga xëy ree kii boo ko ree day am bës bul ree bàyyi koog man bul ree bàyyi koog man kii boo xoolee rek kay may bës ay ñànku njaay faramaare ma yes may si biga may si biga man bàyyi koog man bàyyi ko góor yàlla bi Aku gurih alih. Wih. Hey! Wih! Ah. Wih! Ah. góol da nga koy bàyyi góol. mais eh, góor yàlla eh am say daal. waaye xam. eh kay gis sa daal li. dul. <laughs> eh kay gis sa daal li bi. <laughs> góol da nga koy bàyyi góol yow am nga sas bu dee war a xool ki def naa la. lu xasaw. ba joxaleen ma ko foofu benn mbuusi bisaab waay <laughs> waay déet waay.